jaajëfal leen bu baax mbokk internet yi sa teewlu lu 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaax bi ñu dooree ko ak ay kàddu kii di uh, Pape Alé Niang uh, moom nag gannaaw ab live boo xam ne mi ngi ko doon amal àdduna jëmale ko ci kii di juge Aïssata Ba Diallo nee na nag ba muy uh, bañ a signé dafa d'accordu toon nag ak ñoom ndax def leen ne woon nag cour suprême mënoo leen jël nag atte bi lee di koy yóbbu fi nga xam ne moom mooy tribunal d'instance bu Dakar ndax nag nee na amoon na fi xewoon ci mbirum karim wad eh, ak ñeneen ñoo xam ne nag atte woon nañ leen foofee nee na mu wax leen ni nag comme fii nii am na jurisprudence fii la ñu ko war a atte waruñ ko yóbbu ci tribunal d' instance bu ndakaaru nee na nag wala ngeen génnee ma ci loolee nag la xamle woon moom juge aysata ba ngeen nekk nag ñeent au lieu ngeen nekk juróom moom nag pape alignan daal di xam ne ne nag ki nga xam ne moom mooy maître siré aliba ba moo gën a xam ne yoon waxut yu ñu mel nee na nag avocat yi yi li leen war rek la ñuy def maanaam mottali seen i liggéey ba noppi nag di dox ci ay waayu gouvernement ak seen tere waaye nag li nga xam ne ñoom avocat yi ñu koy amal tëgguñu ko ci benn texte nee na nag ñoom luñ leen sant rek la ñuy amal li nga xam ne moom la ñuy lamlaamee bés bu yàlla sàkk nag avocat yi nga xam ne ñoom ñooy àtte ñoom ñoo ñu ko gën a xam ni nag act bi nga xam ne moom la ay Aïssata Ba posé woon moo tax nag juge bi atte wutoon uh, bés boobee waaye nag bu ko posé wutoon mu atte dem sax ba xam le ne pouvoir bi nag jamono jii li leen ñor moom mooy rek ñu daal di éliminer ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ngir rek mu bañ a bokk ci élection présidentielle yu ñu dëgmal. ay kaddu yi xam ne kii di Serigne Saliou nag daal dina ko yëkkati mu doon nag ab taskatu xibaar mu àddu jëmale ko nag ci li nga xam ne moom mooy rabadare bi avocat Ousmane Sonko yi daal di déposé àdduna jëmale ko nag ci li nga xam ne Cour suprême daal dina ko amal nee na nag atum 2018 cour suprême loolee xewal na fofé waye jamono jojé nak ñu gisoon cour suprême dafa waxoon né lu soxal mbirum élection en matière électorale nak kenn du renvoyé waye mom nak Serigne salou ni jamono ji nak loolee da ko jaaxal fofé nak mu daal di xam tribunal de Dakar nak dafa violer propre jurisprudence am mois du itam jëmale ko ci candidature yi nga xamné bari na lool te ñu koy nemmeeku ci APR mom nak nee lolé njubadi rek mo leen ci dugal enen nak ci ñi nga xam ne wax ne conseil constitutionnel dafa wara prouver mu ne nak instant conseil constitutionnel c'est pas la loi xam ne nak du mom moo war wax li wara am ak li warut am mu xam sax bu fekkente ne c'est le juge de la loi nee na nak nekkul juge loi bi nga xam mom moko appliquer appliqué day xool constitutionnalité des lois waaye nak nekkul juge judiciaire dañu wara bayyi nak nag mbubu bi nga xamante ñu koy conseil constitutionnel te amuko ko nee na bu ñu demee nak bañu atté ba xamal Ousmane